برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان secrétaire bi mu ko nuyoo am benn presse bu nekk màkk moom ma ko doon fayal weeru dee at mu jot moo may jox lu may fee Sacré Cœur ba benn bés mu ne ma doo proposé borom ndax du la ko jaay ma proposé mu ne ma waaw dama koy jaay mu jaay ñu ko ji boobu temps xam nga ñaata million يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله La Dara de Sacré-Cœur dispose d'un internat avec une pension complète à la charge de Seyda Maria Magnas. Internat bi fii ñi fi nekk ñëpp amul kenn ki nga xamante ne moom da ngay fay loolu yëpp mi ngi jógee ci poche soxna si Seyda Maria Magnas. ñi fiy ñëw di jàng si rek ñooy ñëw mais ñi fiy joxe ay 3000 rek xam nga loolu dundalul dara suñ ndox mi ngi ñëw nekk mille courant tamit ñëw nekk 250 wala léegi-léegi mu ñëw nekk 150000. lekk bi moom toujours mu fekkee añ la moom dañuy sóor 15 kilos la ñuy sóor mun nañu wax ne lu mat 25 palaat moom dinañ ko dinañ ko dinañ ko yegg ci añ bi ak reer bi. Saïda Maria Magnas a des rapports privilégiés avec le Coran. Elle aime le Coran, elle l'adore, c'est sa vie, c'est aussi son monde. nit la goo xam ne alxuraan la yàlla yàlla def ci boppam mu dégg ko ba am na benn ben wu Algérie Mustama fekk euh, Jedda ñu ñu bokk ci benn réception boobu maay consul maay consul général ba foofa ñuy waxtaan ba mu ne ma man daal am na benn jigéen boo xam ne impressionné na ma dama fàttali benn taarix bu ma jàngoon ci téere yi am jigéen boo xam ne dafa nekkoon ak alxuraan ba nga xam ne lu muy lu muy tontu sax alxuraan lay tontoo ba man mën naa oo ndaw soosu Seyda Mariam boobu tuddee ko al mar'atul mutakallimatu bil quran mooy jigéen joo xam ne alquran lay waxee. baatu Mariama daa am lu muy tekki boo ci tegee sawda daa am lu muy tekki wala fi naan sooda ku xam loolu boo déggee ñu ne ma ngay liggéeyal alquran du la bett xaadima mooy koo xam ne fuñ la séen ngay dox ci alxuraan ngay dox benn yaa ngi koy jàngale mbaa yaa ngay wujji mbooloo mu woote. wala yaa nga toog di ko nafar wala yaa fu fuñ la fekk rek yaa nga ci moom. yaa ma xalimatu xuraan la parce que xitma na alxuraan ñim ko mokkal loo ñu tari ko mokkal ko dañu bari ci góor jigéen ci ay nit yoo xam ne sax yàqalu seen école publique ñu dem ba doctorat après. Baye dafa noonu yàlla jagleel ko karaamam nekk di alquran kon ni ko waxee tajal na xifzaka alkitaabuka alkarim karamati ila liqaika al azim dëgg-dëgg karaama googu bu ci seydaa Mariam ñëwee tànn li nga xam ne moom mooy alquran dëgg-dëgg rawatina mu yóbbu ko fële ca Ndakaaru fa nga xam ne jafe na lool pour lim fa taxawal waxuma jigéen waaye pour góor sax taxawal ko fa lu jafe la kon bu ñëwee taxawal fa taxaw ko foofu ci ndakaar jëriñ ci doomi Sénégal yu bëree bëri bëri ba nga xam ne tey ñu bëri mën nañoo toog tey ne daara Seyda Mariam moom laa génnee kon mën mënee joxe exemple ci mahad bi nga xam ne moo bi Mawlana Cheikh Ibrahim la. alxuraan da ko jaral lu bëri dégg naa ci sama papa ca Kosi samay nopp mu ne bi bàyyi di tafsir alxuraan ñu ne ko yaasu sar am na doom ji jigéen ñu ne bàyyi fa leen ak tontu na leen borom alxuraan juddu na loolu rek doy na wax. je voyais sa maman jigéen ju ju am personnalité ba pare.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 هذا ata'una famnun aw amsik bi ghayri hisaab yàlla mu ne lii sama may la maa leen ko may ci lu benn condition alhamdulilah jàpp leen ñun tam ñu jàpp ci قالت امرأة عمران رب نذرت لك ما في بطني quran boobu mu tuddee boppam tey ne serviteur servitrice alquran loolu moom nekk xale bu tuuti ci la ci la dund ba ba ilaa yawmil qiyaamati nekk ci alxuraan dina sama bàyyi sant rek alhamdulilah te laa nekk ba trop taxaw de wax na ma ne leen ñëpp laa jàngal alxuraan nag waaye yaa ko gën yaa ko bëgg alhamdulilah sant yàlla loolu Seyda nit la koo xam ne bu la yàlla booleeg moom foo em rek yaa fa emale sa bopp ci moom nit la ku baax nit la ko tabe nit la ku oyof nit la koo xam ne dafa jikko dafa bari jikko yoo xam ne mi ngi woon ci Mawlana Cheikh Ibrahim ñu ngi koy gis ci moom fay tooyal سما قول بسول بالله بالله أريام بنت شيخنا بشرى لنا إجتنا جاء السرور والهنا يا مرحبا يا مرحبا أنت حبيبة لنا وإلى الصحن سيمون بيامة dafa bax bay bàyyi ju baax mooy fondation ak yaay ju baax mooy fondation bu baax jigen la jo xam ne moom man góor ñu bari ndax jigen ju jógee ko fi ba siin topp réew yi réew mu nek mu duggal fa islam am fa fa wax dal bari na góor ñu ko deful sax. Elle est reconnue et connue je dis encore une fois comme une femme d'islam sa notoriété ses actions dépassent les frontières du Sénégal et même de l'Afrique si vous trouvez Hadja Mariama Yaboy à la Mecque et que vous voyez comment les Séoudiens la traitent avec respect, avec considération, avec affection, c'est là que vous entrez dans une dimension la plus grande, la dimension islamique. ورثت الخليل ونلت الجدى وحستي من الفيض أغلى حلا نونكو دون نونغا سباي دون نونغا خليل فايدة بي بي gën ري rëy moom la doon bëgg alxuraan bëgg na alxuraan ba ku mu yar sax boo danga da jàngal ba nga wàcc waaye bu la jàngalee bala wàcc ba nga wàcc du du la du la delloo dalay lay yar boo matee am jabar mu takk la jabar soo matee am eh, jëkkër mu wutal la jëkkër te su ma mag fii la jàngee alxuraan ba wàcc ba mokkal alxuraan mu yóbbu ko màkka macha allah may ko soxna takkal ko jabar mu so mu sokka yeewi mu dem seen seen kër fekk nag am na métier am na liggéeyam man nag après bi sam papa bi mu gisee résultat boobu ne ko du ma dañ ci di la jox suma doom nga leen di jàngal alquran ci la ma indee man mi may jàng alquran depuis eh, eh, 92 ba tey jii te fi mu jaar ak sa man laa bu dafa la jaar ak man parce que dem naa Maroc yóbbu na ma def benn concours Maroc delluwaat naa Maroc dem naa fi Mauritanie dëkk yu bari bari bari ànd fa ak moom ngir lan parce que day bëgg chaque jour ki gëna ñaxlaf ci daara ja mu génn la nga découvrir leneen gis leneen. Elle est gentille euh, elle n'est pas rancunière du tout et elle aime les enfants vraiment elle les aime c'est un symbole euh, au Sénégal vraiment. nit la ko xam da fay dund ci yalla ba nga xam bo xolé nit ki sax boko xolé sax xam ki kii fi c'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Même elle, elle se cache. Elle porte un voile, son vrai visage. Non. te bi yàlla waxee julli ñu góor ak ñu jigéen ba muy fukki daraja ñëpp mu mel ni daf leen a yemale yaa ma exemple la ci man daal damay ñaan pour que yàlla yàggal ko fi lool pour que nit ñi di mën di roy ci moom moom itam li muy joxe mën na tasaaroo. bañ ko xamee ba tey kenn mësul am ndaje mu wuuteeg ndaje mu mu yàlla gërëm nga séen ko ca loola. la sëñ ba doon wax cheikh islam xaaj ibrahima ñas fa kullu man xadama nii laqaanii fii jannatil xuldi bi laa buxtaani ku mu xëyal rek jox naa la daan di wàl jànn waa léegi bu fekkee borom xam-xam ku mag ku màgge noonu moo wax ne ku ko xëyal jox na la daan diw waaw kii xëyal yàlla bi xëyal alxuraan karim moom tam te boole di ko ci xëyal moom ko kan la war a doon loolu la nit mun ta xam une femme très saine très pieuse et, très dégourdie aussi dara le plus de il a une force morale indescriptible parce que maintenant si vous allez avec elle voyager elle est infatigable peut-être maintenant avec l'âge quand il est préoccupé par un dossier elle me dit on reste pendant toute la nuit on ne dort pas.

waaye yooyu yëpp dara da ko ci fekk lépp ay sëri ci lay génn indi ko fi. demal këram melut ni pale daara la ko def te amoon na moyen pour tabax ko pale ba ci biir néegam ba ci kaw lalam daara la peut-être que ni ma ko gisee mooy yaram ak xaadimatul quran bi muy woote moom la ko yàlla moom moo ko wuy si moo tax tey jii ni du gis taar. il n'a jamais été attaché aux choses au luxe euh, aux c'est-à-dire aux, beaux habits, à toilettes, parures, tout ça. Elle sacrifiait tout, tout ce qu'on lui donnait. Il le mettait euh, dans la prise en charge des enfants et dans l'éducation. Celui qui éduque doit d'abord s'éduquer. Donc, tu ne peux pas euh, éduquer des masses alors que toi-même, tu ne te l'appliques pas. Donc, je pense qu'elle, elle a pratiqué la règle. Je me l'applique d'abord

waaye du ngeen a fait presque le tour du monde pour porter très haut la voix de l'islam, propager l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est également une manière de suivre les traces de son père Cheikh al-Islam qui lui avait déjà tracé la voie. inna haadaa kaana lakum jazaa wa kaana sa'yukum mashkuuran wassalaamu aleykum wa rahmatullaahi taala muy jógee Imaaraat ay Dubaay ak yooyu Qatar Qatar jabari boor bi suma xarit la benn bakkat buuru Qatar bi eh, eh, Abu Dhabi itam ba ma demee jabar Cheikh Cheikh Fatima jabar seex bi def maa ñaan ne ma naa ñëw naa toog fii di ma jàngal alxuraan ma ne ko ah yàlla yàlla dafa neex bul watan minal iman bëgg sa ci gëm yàlla la bokk man nag suma réew ma gënal toog fa moom ma gënal fa dul moom yow boo amee doom yi jàngal boo ko indee dinaa leen jàngal ba ma ne naa la utal kenn it ma ut ko indi waaye man sama bopp man sama réew rek laay toog di jàngale ko bëgg sama jàngale fekk ko foofu Elle a également participé aux plus grandes rencontres mondiales consacrées à l'islam et au Coran. À l'occasion d'un voyage en Arabie saoudite, elle a été invitée à la télévision nationale en compagnie d'un de ses élèves, Ali Harazim, actuellement enseignant et imam en France. Ses voyages en Mauritanie étaient beaucoup plus fréquents vu le nombre de talibés et d'admirateurs qu'elle compte dans cette république islamique. À 82 ans, Seyda Maria Magnas ne se couche jamais avant minuit. Parfois, elle reste jusqu'à la prière du matin. Nous l'avons pu constater de nous-mêmes à l'occasion d'une nuit qui nous paraissait assez longue. Avec...